Louis Click. yéenekaay bi xëyee tey ma di leen koy yéeral bés bi le jour daal nay dikk ak ñun nag ci coow li doxoon ci diggante baa Diakhaté Imam ndaw gannaaw kàddu yi nga xam ne yëkkati woon nañu ko daal di koy jëmale ci Ousmane Sonko premier ministre bés bi le jour nañu gis nga kon coow li ndaxte gis nga tabaski ren bii mën na la baa Diakhaté ak Imam ndaw mën na la gaa yi rëbës lañ ko nar a fekkee ji de ndaxte ndiki démb sa tribunal bu Ndakaaru mën na la ci yi génnee verdict ba nag daal wax ni nga xam moom la ñu a tënk de ndaxte ñetti weer ferme yoo xam ne dañ ko war a tëdd si kaso bi ma ne la bés bi le jour na yemul si baa jaxate kott ak imam ndaw de déedéet déglu ma ma wax la a gay PDG a daal nañu si door a gay kott de déedéet mañu ma nopp ma dee leen gis nga benn waaye bu ñuy wax Alassane bu Sonko daal lañ koy garde à de ndax moom tamit lañ koy toppee kay mooy mën na la ab saaga kàddu yu ñaaw yu ñagas yoo xam ne da koo jël yëkkati ko teg ko si ndodd procureur ak juge moo taxit gis nga Alassane bu Sonko bokk si Pastef gaa ñi fi ne daal dañ koy garde à de ñëpp ko jant bi kon kay pour le nii moom Alassane bu Sonko mu ngi sa loxoy yoon waa réew mi moom neex na di lii da mooy yoon ñëpp la fi nekkal waa baax na rek vox populi nañu kon boo bëggee dégg-dégg kon jàppal nii moom baa jaxate bu bees bi kon a topp te ñoom la ñu yëkkale kaay nañu kon Bah ak Imam Ndao dinañu tëdd nag ñetti weer kaso te kenn ku si nekk si ñoom dina fay ab amende boo xam nii mën na la cent mille francs CFA la ñaar ndax lañ leen di toppee mooy mën la ay kàddu yu ñagas yoo xam ne dañ koo yëkkër si ab benn nit boo xam nii mën la jàpp ne bi mu am mën nañ koo méngale rek dayoo njiiti réew mi mën la président de la république ñu daal di leen condamné kenn ku si nekk si ñoom rek pour division de fausses nouvelles vox populi nañu gis nga kàddu yi nga de ak oustaz Ndaw de kon kay moom maître Malick Sall kontaanul dara dama na la si peine bi nga xam ni mën na la juge bi daal na koy jël rek nee gis nga lii mën na la lii niñ ko jugé dëgg dëgg mbirum cruel dëgg la moo taxit moom maître Malick Sall ne dina dugal ab appel mën na la ngir wane na ñoom dàqoorul si daan bi nga xam ne daan nañ ko baa jaxate coowalu baa jaxate bii mën na la l'exclusif yéen kaay bi daal si wax l'exclusif di ñu xamal ñu tëj Alassane bu Sonko moom tamit daal lañ koy jàpp daal di koy garde à vue sa duwaanu dikk <laughs> gaa ñi may wuñ dara kuy wax ak kuy coow na nga xam ne kon yoon ñëpp la fi nekkal de yëgle kaay bi dañoo xamal ni gis nga relation bi nga xam ne la ak taskatu xibaar gi presse gaa bi neexagul de moom état bi daal na koy teg li nga xam nii mën na la mooy mooy presse bi rek mën na la gannaaw appel de détresse bu dee média ak 7TV mën na la harcèlement yi nga xam ne daal nay am si mbirum fisc ak amnistie nga xam ne mën na la daal vue ma ne la gendarmerie nationale Madiambal Diagne ma ne la fi mu ne nii bu quotidien gars yi jublu nañ ci moom de Madiambal Diagne gars yi jublu ci moom ndaxte groupe avenir communication fi mu ne nii den daal nay def ab redressement fiscal boo xam nii ma la si 91 millions daanaka jege woon na 100 millions de yëgle kaay bi nañu gis ab taxation d'office si impôt te atum 2020 jàpp 2021 mën na la te gis nga lii li muy jural boîte bi fi mu ne nii les waxul de waa baax na rek journal Les Échos yéen kaay bi nañu kon koy gis nga coow lu redressement fiscal bi gis nga compte bu groupe Madiambal Diagne maanaam la gaa ñi bloqué nañ ko fat fépp ndax ab taxation d'office ci impôt yoo xam ni ci atum jàpp ci atum te gis nga boo ko xaymaa impôt yooyu nga xam ne moom ma jàmbal jaañ ma ne la moo ko waroon fay ma ngay toll ci 91 millions de francs CFA te boo moytuwulee gis nga jafe-jafe yi nga xam ne moom ma jàmbal jaañ ak ci personnel bi nañ ko jànkoon tel na la fi mu ne ni jafe-jafe la de waa baax na rek yëkkale kaay bi ñu kenn jëmal ko ci assise nationale de la justice bii nga xam nii mën la tey jii mooy daj tëpp gi rek yëglekaay bi dañoo xamal ni gis nga teewaay wala ñàkk teewaay njiiti réew mi sa conseil supérieur de la magistrature maanaam fi mu nii ku si nekk rek si ñoom ñii ne nañ d'accord nañ ñii d'accord uñu rek waaye gis nga boo bëggee dégg-dëgg la gars yi tënk kay ci dialogue bi accord total ngir ñu wàññi li nga xam ne moom mooy pouvoir procureur li daal ñëpp d'accord nañ ci rek l'info quotidien di dikkal ñun ci conseil supérieur de la magistrature bii mën na la ñoom si boppam ñooy maintenir ki nga xam ne moom mooy chef de l'état si biir conseil supérieur de la magistrature ndaxte ñu waa l'union des magistrats du Sénégal la ñu wax koy dëggal si dialogue bi kay mooy mana la gis nga chef de l'état si boppam kenn war koo génne si li nga xam nii moo mooy si si conseil supérieur de la magistrature ndaxte taxawaayam mana la dafa am solo de kon kay ne ko gars yi maintenir lii la gars yi wax lépp si journal bi rek direct news na ko gis nga mi Bassirou Diomaye Diakhar Faye réew lu muy neex neex neex mana la bul fàtte ne handicapé yi wooy laago yi ñu ngi si guddugu ba setagul moo moo taxit direct yi nga xam nii a la ñoom way laago yi daal nañ koy jooy te koy yóbbante njiiti réew mi mën a la président Bassirou Diomaye Faye waaye na gis nga yow njiiti réew mi bàyyil xel handicapé yi fii si réew mi gars yi sonn nañ de ndaxte gis nga téeméer boo jël fii si réew mu Sénégal jàppal ne handicapé yi ñu ngay représenté fukk kon xam nga lim bi lim bu am solo la te gis nga jafe yi nga xam ni mën a la handicapé yi ñu ngi koy dund fii si réew mu Sénégal xeetu ñaaw téef bu nekk mën a la discrimination ba si harcèlement xeetu stigmatisation bu nekk dund nañ ko ak injustice sociale kon kay yow njiiti réew mi Macky Sall ñu ngi lay taalal suñu loxo ngir nga jàppale ñu handicapé yaay wax fi ne nii de jël seen yóbbante daal koy jagleel ki mooy yoon waaye dañ leen jàppale tey taxaw leen enquête quotidien ne ko gis nga nag dëgg-dëgg war nañoo wax ak tàndeem Diomaye ak Sonko mi mën na la gaañ ba ñu ñëwee si réew mi ba léegi nañ ko waxtaanee ñaari weer la ñu defagum si réew mi te musu ñoo grâce grâce amagul de kaso yi <laughs> gaa yaa ngay kaas de yoo xam nii mën na la ba tey ji tàndeem wuñ ko nañ ko waxta dee gaañu nañu grâce gars yi waay ndax fi mu ne ni génne ñeen nañ sa au moins si ñi nga xam ne ñoo nekk si kaso bi rek bés bi la jour ne ko kay boo bëggee dégg dëgg gis nga si ñaari bés ñaari deux jours cote daal nañuy teg loxo nag lu toll 63 kilogramme juróom benn fukk ak ñett si ay kilogramme mën na la kon kay boo bëggee dégg dëgg zone centre bi fi ne nii ñoo raw gàddu ñoo jël dak dëpp gi ndax